sambur tura sambur kat mané ma di bu baaxa baax di leen ziar di leen ñaanal suñu borom sutural leen katana ba ñu ci wat waat ñun ndax ñom dañoo bok si ñun ñun suñu mbaax bàyyiwuñ fi ñun ñoom seen bon yobbu leen fa kon gaay yi état bi lañu gessu rawati na nak suñu frère suñu lepp bébé jeen ñu ko ñaanal suñu borom sutural ko bu baaxa baax baax mu dellu ci wat mom at naanaan yi fa nek yëpp nag bàyyiwuñ kenn te ñu un grand champion ciatu piol la wala ciatu neeg bi ciatu piol bi la <laughs> ciatu piol bi waaw caatu ñu bàyyi la nga nuyu ma ngi lay nuyu di la ziar di jox ñep tam seen waju way di sant ñep di siar ñep ñi fi tew ni ñep sax waaw. Thiatou Guewel màgg bëre dafa judd fekk ngeen ci kër gi. non dama judd fekk ngeen ci kër gi waaw dama màgg bëre. comme neena nek ci kër gi ñu ñu war non ñu fa nekk ak bëri sax. billaay wallaay ko si melni ba khalid tali. ibrahim ba si ndem si yàlla see moom mu ñu ko yóbbu mbapat kee. jëm jee segmenté. billaahi dama am mbapat ba sonu yalla xam na ko. si mbapat nga ëpp li nga mbopat non ma xol bëri na nak parcel bi Grand yof Arafat ba ay yarax yep mbopat nañ fa. waaw si mbopat si mbopat combat nommé nga ëpp li nga defal ay tournoi. ay tournoi nak la ëpp lu ma bëree. tay ci tournoi mën nga ñu wax ndaanaan yo xam ne yaa gis ci arène bi ñi nga dané wala ñi ñu dané wala ñi nga bokkon ak ñom tournoi ma nga leen di gis mom ku ci melni chatu malaw maalaw. bu garaaf mbolo waaw ma ngi fay gis <clears throat> ak ñeneen tamit. ak Milima moom suñu mbapat moom moom moo ma daanoon waaw ñoom ñoo ngi si arène bi nice. ñaar ñooñu nga gis ñoo xam bokk nga ñoom sax gis nañ si arène bi. waaw ndax daal ñooñu daal laa si remarque daal. Hmm. Mhm. dañ si lutte simple bi. non non lutte simple si wàcc moom. si wàcc moom. kon si dëkku àll yi daan nga dem si dëkku àll yi. dëkk àll yi sax dugguma fa. Hmm. waaw. caati piol. Ndakaaru la ëpp li mu Ndakaaru daal la ëpp daal lu ma dugg. pas ëpp lu ma mbapat daal. Mhm. li nga jël si tournoi ak si combat na ma leen moom. tournoi yi ñoo ëpp. ñoo sama mën nga ko xaymaat hmm. mun naa ne su ma doon bëree individuel la kii brise li sax du ma ëpp drapeau wante daal ñoo ëpp daal. Hmm. Mhm. tournoi yi. Grand Médine nga ëpp li nga li nga jël wala Grand Yoff wala waaw Grand ëpp sax ak parcelle bi tamit. si mhm. tournoi hmm. ñan nga si doon bokkal génération. ma xool bëri na nag de bëri na ko su mel ay caatu maalo caatu réseau ak yeneen gars yi ndax tournoi moom waaw tournoi la ak tamit yeneen saa nga daje fa tamit ay séeréer yoo xamante ne doo leen xam man daal dama si tuuti woon da ngay ñëw sax war waaw ñu war laal laale sax xool ma sax xeeb ma. ma xam li ma xam rek waaw. caat fii ñu la fekk nii mooy fan. fii fii mooy B13 bi. samay banlieue treize waaw mujjee teew gën a siiw waaw dëkk baa ngi nii diwaan bi bilaahi <laughs> fekk la fi ngay seeg kafe yow ak mbokku taalibe sa diggante ñoom lan la non man ak ñi dañu yàgg ñi man ak ñoom du tey démb la balaa nga koy xam bala le 19 incha allah si nga koy xam si kàttanu. le mhm, ndax ma ak ñi du tey démb la sama bis dañ ciy sonn. dañ ciy sonn lool loo tax aw ma seen fay dama leen di bàyyi yàlla rek yàlla bu am seen fay yàlla leen yàlla fay bu baax a baax a baax ñoom ñëpp nag billaahi mënu maa dugg fii ba ñibbi sa nuyu moom Mor Sow ak Soulay Saliou Baye Fall yooyu mënu maa dugg fii ba ñibbi sa du bëggee ma leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay bu wér ndax li ñuy wax chaque jour rek mbaam gàtt na waaye si jur gi la tey ji ñu ñëw si lutte avec frappe sa premier combat arène fan la woon at kan la woon at kan moo ko tëggoon at yaa kan la woon sama premier combat arène mangi ngi bëreeg Sokh 2. mbay Yékini moko teggul tëggoon bu jaxay wala bu kii. xaw est ce que Pikine daal la waaw maa ngi bëreeg Sokh 2 mbay Yékini moo ko du combat grand combat de Ziga ak Kaw Gourdin waaw. ci <coughs> lay bëri non yak ngi man ak man ma mujjee am ndam si kawam. ma mhm. ñëw sa deuxième combat. ma ñëw sama deuxième combat man ak tafatine tafatine bu jamm gën. jamm gën waaw ndol mi. waaw ndol mi waaw. si laay roof noonu cabaxal mu esek ma dàqaat mu esek si laa dàqee mu dugg rek ma waaw. jeex na tàgg. <laughs> troisième combat. troisième combat bi noonu la demee man ak guy gi bu pikin guy gi deux bu pikin moo waaw. non xam nga mbëri ndaw yi moom seen tur affaire day bëri doo xam. bu ñu bëri bu gàtt bi la wala bu gàtt bi daal. waaw mun na nekk tamit de. waaw bu Aziz Ndiaye waaw. Aziz Ndiaye bu Abib Ndiaye waaw waaw. waaw noonu la demee nag. Mm-hmm. Mm-hmm. moom tam noonu la fa demee rek. dañ daw waaw bu wér sax. bu jugee ci ko instant yii nii si Ibu Afia. est-ce xam nga si ki nga dugg. Ibu Afia waaw bu baax a baax sax. xam naa ko bu baax sax. kon nga xam ne moom nee na adversaire bu moom doo pousse doo passe doo noo film noo faam moom si moom nee na y' a pas de malade te ku mu jàpp da dem peese. non moom du pousse du passe te incha allah maay diriger maay def lépp soobee yàlla. nee si ki mu jugee moo la gën a oos moo la mën moola ëpp doole muy xaysara sa bi ko jàppee baat ak tontu la ko def nee na yow yaa ko moom du combat. baax na le 19 yàggatul Ibou Afia du diriger man maay diriger. waxal ak moom si kàttanum yàlla Ibou Afia doo diriger te amoo lay diriger jour combat bi maay pousse maay passe maay diriger incha allah fépp nag. est ce que bi ngay jël am atisseur day xeex day bëre nga jël ko. non kooku day xaar da ngay xaar de bu avié da ngay xaar lu bari doole sax bu bu subaa du xeex du def dara. mais ko ku waxoon xam ne moom xeex ko gënal lu ma am nee na. waaw foofu nag boobu nag rang muy gaaw doon nag man xeex boobu noonu may neex. li ngay wax nii loo gëm la wala loolu yi day nii lu ma lu ma liggéey la. lu ma liggéey la day xaar de lu ma liggéey la incha allah rabi lu ma liggéey la bu xeexee ma daan ko jëlee bu gaaw si kàttanum yàlla yërmandem. yow nga taxaw ji samp jaga sa diggante ibu Afia sampu jaga la jaga non non man gëm na ne yow français nga na doko def na wa yalla baax na. yaa français nga na <laughs> yalla baax na ya ko du. affaire du diriger de. may diriger may def lepp tay loo koy loo koy wax. di nga xamal ne mom no xamna karama carrément ku gën daj ciono yalla la yalla suñu borom may ndam rek amul leneen. combat bi des na de. des na. billahi to bu bis ba bu duggé ci gëw gi. non non moom ay mboqam sax dinañ dar seen gémmiñ man loolu gëm naa ko yal nañ yàlla may gudd fan ak wér ak jëriñ. ngeen nekkul nii nii da nga koy nguus nii rek di ko nguus di ko tegaale xel nii. non moom xam na ni affaire yi nante ngaa xala rek ñun xamante nañ bu baax bi affaire xam na lu koy wax bu baax affaire yi nante ngaa xala. fi doon nga taxaw si 9 points si 9 points nga taxaw défilé fi ñu toll nii nga war a jël xale bi nga xam ne moom dafa jugee si défaite ñëw am victoire. ndax euh, dafa Aliou Fat Fat daan mu jël xaysara daan ko war a tourné waat si yow nag. non fii moom day teeroom day xaar de fii bal teng si la de day xaar ñi nga daan bëreel. moom bokk ne ñi nga daan bëreel yow ay jàpp jël la nga daan def. nag di nga xeex di nga bëri. si moom lay gën a yombee si kàttanum yàlla man bëreegu ma sax yàlla xam na si moom lay gën a yombee incha allah rabi nag si xeex si bëri yàlla xam na ko bir na borom Tuubaa si Ibou Afia lay gën a yombee. bëgg xeex incha allah bu bëggee ñu xeex bu bëggee ñu bëre. lu mu def. lu mu def daanu. lu mu def daanu. yàlla xam na ko lu mu def day daanu. billaay wallaay wa taala non góor du yërëm góor. yàlla xam na noon la fa demee sax bi ñu yërëmante maa moom incha allah rabi. fi ñu toll nii bi. di Mor nekk waa jàmbaar Roussirigne tey jii lan nga leen di wax. sant ko gërëm ko kontaan tamit si moom bu baax a baax a baax ndax tamit lu mu def ni tam yombul. macha allah waaw lu mu def ni yombul la di ko ñaanal daal yàlla bu mu si am benn rëccu rëccu yàlla na ko si yàlla defal tawféex incha allah. est que bu jur jour ba xalaat nañ caatu Piol duy xaaju xaaju tribune bi. non loolu national. yàlla baax foofu sama arène nationale la. foofu ñoo ko incha allah rabi kooku dama koy feesal mu fees del balaa nga doon waxam <laughs> kooku day xaar lu bëri doole sax moom billaahi day xaar lu bëri doole billaahi dama koy feesal de man damay jóg àdduna mooy jóg barki borom Tuuba kon du ma ñëw di taxaw Ibou Afia di def sax benn défaut bu tuuti du ma ko may dërëm te lu ma may damay jël. yéen moom ñaanu la dara lim koy jël si. non mënu ko jël si AFC mënu ko jël si man maay diriger fu mu taxaw fu mu taxaw maa koy fekk ji. nee na yow yaay wax ni rek waaye bu at bi roccee loxoom doo wax. waaw baax na kook bu at bi nee prix laa la wax dama koy tegal sama table wut si ko. nee na supporters yi ñooy wax ñoo ko yab la waaye yow yaa xamante ngeen. baax na yàlla nañu yàlla may talak fekkee rek moom dina xam après moom daful dof dof lawul après lay comprendre. daful daful dof dof lawul après lay comprendre si kàttanum yàlla. le 19 lay comprendre wala le 19 juin incha allah lay comprendre si kàttanum yàlla. le 20 lay doog a sib luy daw na. le 20. le 20 lay doog a sib comprendre moom kan la jëloon. doful dof dof luwul. yow affaire dofoo dof dof luwoo après ngay comp. le 20 si ngoon ngay jógee comp yow lan la affaire nu mu demee noonu. yéen yéen yéen yéen yéen a yab yéen yéen a yab Ibou Afia rek yéen yéen a ko yab waaye caat yabu. billaay walaay booy mooy puus mooy paas dégg nga ma booy mooy puus mooy paas. kooku du pousse passe. ragaluñu fuñ jëm moom dana ñun mënuñu xeex mënuñu dara ñun suñu combat yëpp xool ko benn bokk ak sa morom te yu ñooy dàq nag yu weesu waaw moom lu mu indi ñun indi nañ lu ko raw ba toog si di xaar ñun stade ñoo ko moom dañ ko def pikin rek mais ñun ñooy borom ñun. barki Serigne Touba te kii ñu dekk dëkk micro dinañu dëkkaat mikoro ñu toog si siège bi bu soobee yàlla ñun ñu nag yow ñoo la gën a forox gën la ënn barki Xaadimu Rasuul ah rang wu gaaw la Eh, caat caat caat mafia caat mafia bi mafia bi tànga dee de. non yàlla xam na ko. ñii dañuy yëngal si kaw bu mu yëngu man may yëngal si suuf mu yëngu yàlla xam na ko. Ibou Afia amul lenn lu muy pousse si combat bi. combat maay diriger te bu xeexee mu am jël bu gaaw jël bu ko bett si kàttanu yàlla. combat bi seetu nga si kaw. mun na nekk de. incha allah rabi lu garaaw nag li nga wax ni mun na nekk de. bu xeexee waaw waaw dóor si put la mu kaaw. dóor si put mu kaaw. dóor si put la mu wàcc. amul yërëm. mafia bi dafa am lu ñu la déy suuf. no affaire mooy loolu déggoo ma la wax dóor si put rek mu wàcc. non déggoo ma la wax ñii duñ topp sama ginnaaw muk may raf jamais de la vie non non déedéet kon dama leen di yab te ñii dama leen mës a yab. Mhm. ñii du leen mos a yab dañ may yónni yàqamti ma yàlla xam na ko. te doo si put boobu day am dañuy wàcc suñu tànk bay suuf dóor ko si put mu wàcc ñu romb ko jàll. ñun amuñu muy ragal. CNG de xam nga dégg naa bërki démb cinq tonnes nag waa sin ndax kor bi dagat na mu ñëw si làmb ji. <laughs> non bii. non le 19 lay gën a yéeme sax moom Ibrahima moom. ngeen nekk ñaari espoir yoo xam ne yoonu làmb te làmb dalee ci yeen ñaan ñi te fi ngeen tek seen bot du fi bu jour ba lan la ñuy xaar si yeen si ambiance si bëre bu neex si mbolo mu doy. ñaar talon lañu yaakaar ci Thiat ko jël. no man lepp ma koy def bu bis ba mom promoteur bi dina gis si carte num yalla yeul allah lip lepp ma koy diriger.